jataay yoo xam ne léeg-léeg xëy na léegi yitte yi bari na jot amatul waaye léeg-léeg bu ñu mënee rawatina ci weeru bu barkeel bi di weeru koor nga xam ne weeru xam-xam la shahru ramadan alladi unzila fihi alquran di weer woo xam ne ci la yàlla subhanahu wa taala wàcce alquran ñu wax ne ci la ak wàccam tàmbale waaye lépp alquran ci ramadan la wàcc ndax alquran ñaari wàcc la wàcc bu mu ne inna anzalnahu fi laylatil qadr ak shahru ramadan alladi unzila fihi alquran loolu day wax ne alxuraan dafa wàcc ci ramadan la wax neewul daf ko tàmbale wàcce waaye daf ne daf koo wàcce loolu abdullah ibn abbas daf koo ta tekki ne li muy tekki mooy wàcce gi mu ko wàcce lépp mu ñëw ba ci asamaani àdduna asamaani juróom-ñaar fa agsi ci bërëb bu ñu tuddee baytul izza foofu la tàmbalee di jóge foofu di ñëw lenn lenn di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci diiru ñaar fukki at ak ñett kon wàcc boobu mu wàcc jóge ca kaw ñëw ba ci asamaani àdduna ci ramadan la ci weeru koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwaat na ci xadis abdullah ibn abbas ne jibril daan na ko dikkal at mu jot muy gaar ci mu koy gaaral alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tari ci moom alquran lépp jibril alayhi salaam at mi nga xamante ni ci la faatoo sallallahu alayhi wa li tax njottam ñaaw ci ne àppam jot na sallallahu alayhi wa sallam mooy daraan def at mu jot mu gara jibril alquran benn yoon ci weeru ramadan ci weeru koor waaye at moomu dafa gis ne bi jibril ñëwee ñaari yoon la dikk mu gaaral ko alquran ñaari yoon xelam ñaaw ci la woo saxaaba yi magi saxaaba yi wax leen ko ne leen dafa mel ne daa am lu mu ci yëgee ci ne xëy na beneen weeru koor bu ko fekk te noonu la mbir ma demee woon loolu di kon wane ne weer bu am dayoo la weeru xam-xam la ndax alquran mooy ndayi xam-xam yi li ñuy wax ci xam-xam yépp ci lañ koy taataane bu dee kon alquran da daan gaaral jibril ci weeru koor li muy tekki mooy weeru njàng la kon buñ taamu ay fan yoo xam ne dañ ciy toog di ci fàttalante suñu wàllu diine lu baax li nga xam ne moom lañ proposé woon ci waxtaan bi ñu fàttalante ci mooy al ihsaan al ihsaan buñ ko waxee mooy ak rafetal rafetal boobu noonu lañ koy déggee ci kaw ndax loolu lay tekki ci làkk waaye lu yaatu la lu am dayoo la tamit ci diine ndax diine dafa am ay maratib dafa am lu ñu tuddee maratibu diin muy ay tolluwaay yoo xam ne da ci am bu njëkk ba beneen ba topp ca beneen ba ne ca njom la bu njëkk bi mooy martabatul islaam mooy bi ci gën a suufe mooy nit ki tug gi muy tug nekk ci lislaam tënku ci yi nga xam ne mooy shariatul islaam di jëfe diineem di ci tàggatu ànd ak ngëm yàlla ndax ngëm yàlla moo koy lal islaam boobu faw mu am lu ci topp lu ci lu ko lal lu ko jiitu ci ngëm yàlla beneen ba ci topp mooy martabatul iman li yàlla waxoon walamma yadxulu limaanu fi qulubikum walakin qulu aslamna walamma yadxulu limaanu fi qulubikum li yàlla waxoon arab ya bañ ne gëm nañ mooy gëm nañ gañ càggante ni gëm nañ yàlla ak yonentam dañ ci namoon waaye gëm nañ gi mooy am nañ iman àgg nañ ci nekk ay muminuun yàlla subhanahu wa taala ne leen déet àgg boo leen ci martaba nag nekk ay muminuun waaye yéen a ci lislaam rek ndax lislaam gi ñorogoo leen ci ñor ndax ngeen mën a àgg ci daraja bi xam ne mooy al iman waaye loolu tekkiwul ne du ñu ay muminuun mooy gëmuñu yàlla ndax ku gëmul yàlla doo mën a nekk jullit beneen martaba bi ci topp mooy martabatul ihsaan mooy martaba bi ñu waxtaane mooy ñetteel ba yonente bi alayhi salatu salaam dafa am benn bis ci xadisu ak omar ibn alxataab ñu jékki-jékki mook saxaaba yi ñu toog ci jataay ba mu yàgg benn góor daal ne koy dikkal góor gi bi mu ko dikkalee mi ngi sol yëre yu weex dàll karaw karaw gi itam dafa ñuul gisuñ ci benn bajjaaw yëre yu weex la sol li muy tekki moo yëre yu seexlu la yëre yu weex dafa seexlu ñi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi di seetlu ki ñëw gis ne amul lenn loo xam ne ab taq-taq la bu ne ci moom gisuñ ci moom daal luy wane ni fa mu jóge fu sori la ndax yëre yu weex boo ko solee dox ci àll bi dina tilim dina am lu ca taq waaye gisuñ ci moom jeexital buy wane ne kii dafa jóge ci tukki te itam ñoom ñi dëkk ci dëkk bi dëkk ci Madina kenn si ñoom xamu ko ci dëkk bi te madina lu ndaw la woon madina li yonent bi alayhi salatu wasalaam nekkoon ak ay saxaabaam lu ndaw la tey jumaa ji nga xam ne yokk nañ ko ba mu yaatu la nekkoon xarya ba la nekkoon dëkk ba ca jamono lépp ñu ngi ci biir jumaa ji tey lépp ñu ngi ci biir jumaa ji xanaa ñu dëkkoon fa sori ñu ñu tuddee ak dawaaxi ñoom ñoo génn waaye ñu dëkkoon ci li ñu tuddee madina dankalikoo tey ñoom ñëpp ñu ngi ci biir enceinte jumaa ji mu lay wan ne la kon du woon lu mag lool te seen i kër jamono nekkuloon ay kër yu mag ay kër yu ndaw la woon di koy gën a firndeel yonente bi alayhi salaatu salaam néegam bi mu daan fanaan ak Aïcha bu fa daan naafila bu Aïcha tëddee du am fu mu sujjóot du am fu mu sujjóot buy sujjóot da koy pëkk pëkkal ne ko xëccal say tànk pour mu xëcc tànkam mooy ko mu sujjóot bu ko pëkk pëkkalee mu xëcc tànkam mu soog am fu mu sujjóot ci loolu la dëkk sallallahu alayhi wa ba wuy ji boroom ci néeg boobu lañ ko denc néeg boobu tey mi ngi ci biir jumaa ji ci jamono. alwalid ibn abdul malik alwalid ibn abdul malik bokk ci xulafaa u bani umayya bi muy yokk jumaa ji borom xam-xam yépp dañoo daje woon ci madina ne ko yokk ko ci ndeyjoor bul ko yokk ci càmmoñ ndax boo ko yokk ci càmmoñ néegu Aïcha la ciy dugg te bu ci néegu Aïcha duggee bàmmeel bi muy xabru yonente bi alayhi salatu wasallam day dugg ci jàkk te tere woon na jàkk ñu ciy dugal bàmmeel ak ni ni ñi ni mu mel ci nit ñi moom sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko dugalee ci jàkka ji mën na am lu muy def ci xol yi ñu fi ñëw di jàmm yàlla te jaamu yàlla rek mu war a indi ci nit ci jàkk waaye al walid ibn abdul malik dëgëranteeg ñoom bokk yokk yokk jàkk ji ci càmmoñ daal ci dugal xabru bi moo tax tey boo demee nga gis ne xabru bi a nga ca càmmoñ fi nga xamante ni moo tolloog sa xëy na baabu salaam waaye ci càmmoñ la ne kon dëkk boobu nekkuloon lu yàlla bi nga xamante ni waaye da ñëw na góor ga ñëw na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ña fa toogoon ci jàkk jataay ba kenn si ñoom xamu ko mu nekk ñaari mbir yoo xam ne yu safaanoo yu juyaloo ndax buñ ko xamul ci dëkk bi li muy tekki mooy fu sori la bu jóge woon fu sori dinañ gis ci moom luy wane jeexital buy wane ne fu sori la jóge kon xamuñu ko ci dëkk bi gisuñu ci moom jeexital buy wane ne fu sori la jóge mu ne mu ñëw laajtewul tamit yonente bi alayhi salaatu wasalaam laajtewul yonente bi alayhi salaatu wasalaam liy wane ak suufe gum suufe lan boppam te mooy ki gën ci mbindeeku yàlla yi subhanahu wa taala waaye yëkkati ko wul woon bu mu saana toog ak ay àndandoom ay saxaabaam nit boo ko soxlaa bu ñëwee da koy laajte du ko mën a xàmmee ci mbir mi daan ay na muhammad ana muhammad lay wax di ko jeex di ko laajte bañ na ko moo ngi nii wala ko mu ne ko maa ngi nii mu soog a xam ne kii la sallallahu alayhi wa sallam waa ji nag laajtewul dafa ñëw daal di jublu ci moom ñëw ba fekk ko fi mu toog mu daal di ne répp sukk ci ci kanamam jël ay woomam sës ko ci ay oomu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu ñu ciy déggee ne ku ko xam la bi mu ñëwee daal di na ko yaa muhammad axbirni an al islam yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'islam laa bëgg nga xamal moom mooy lan yonent bi alayhi salaatu salaam tekkil ko l'islam ci juróomi ponk الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت muy juróomi ponk yi ñëw ci xadis Abdullah bin Omar yi mu waxoon ne buniya lislaamu ala xamsin mu tekkil ko lislaam ci juróomi ponk yooyu muy ab martaba boo xam ne li ko jiitu mooy seede ne amuñu lenn lu ñu jaamu ci dëgg lu dul yàlla subhanahu wa taala moom rek moo yelloo ñu jaamu muhammad ndawam la sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yabal ci jaam nga taxawal julli joxe azaka woor weeru koor dem màkka bu fekkee mën nga ko benn yoon benn yoon boobu mooy farata mu daal dina ko xamal ma imaan mooy lan muy martaba wu ngëm yàlla mooy lan mu tekkil ko imaan ci juróom benn ponk an tumina billahi wa rusulihi wala bokk wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa tumina bil qadri xayrihi wa sharrihi mu tekkil ko ci juróom benn ponk yi nga xam ne mooy gëm yàlla ngëm yàlla bu wér gëm itam ay malaikaam gëm ay téere bi mu wàcc ci yonant yi gëm yonant yi mu yebal ci jaam yi ñoom ñëpp doo ci weddi kenn gëm bésu pénc mooy bés bu ba gëm ndogal yi yàlla di wàcc ci jaam yi juróom benn ponk yooyu di ponk yi al iman muy ngëm mu daal dina ko axbirni an al ihsaan wax ma lan mooy ihsaan bi nga xam ne moom la ñu waxtaanee mu ne ko al ihsaan an taabud allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ihsaan bi ngay laajte mooy rafetal bi ñuy waxtaanee mooy nga jaamu yàlla mel na yaa ngi koy gis bu fekkee ak buloo ci mën di ko jaamu di ko di ko ci anam boobu ba mel na yaa gis tam ngay teewlu moom gisam ci yow xam ne mi lay gis mu tekki islam ci ñaar ihsaan ci ñaari martaba ihsaan boobu di kon njomboxtalu diine daraja bu njëkk bi muy niveau bu njëkk bi mooy im islam deuxième niveau bi ñaareelu daraja bi mooy iman ñetteelu daraja bi mooy ihsaan mooy rafetal di daraja bu kawe waaye terewul ba léegi ci diine lay bokk ñoom ñett boo leen boolee ñoom ñett ñëpp ci diine lañ bokk benn ci ñoom génn ci diine loolu dinañ ko duñ ci waxtaan bi ndax ñeneen ñi dañ ne ihsaan mooy xaqiqa li nga xam ne bokkul ak sharia mais bokkul ak sharia ñetti mbir yooyu yëpp ñetti niveau yooyu yëpp mi ngi ci biir sharia ndax sharia lakum min ad-diini ma wassa bihi nuuhan shara lakum min ad-din li muy tekki mooy shara lakum ad-din min boobu li tawkiid la mooy ne kon ad-din allahu alladi sharaahu kon sharia la diine ci boppam lépp sharia la amul lu génn ci diine loo xam ni bokku ci sharia bu dee ihsaan ci martaba la ci diine rek mi ngi ci biir sharia xëy na ñi koy tàqale liñ ci namb mooy li wàllu aju ci wàllu jaamu yàlla yi li feeñ ak li nga xam ne moo dëgg loolu dina feeñ ci waxtaan bi incha allah li mu yonent bi salaat salaatu wasalaam tekki ihsaan ci xadis boobu daf ko tekki ak ñaari maqaam ñaari tolluwaay tolluwaay bu njëkk bi mooy maqaamu shahaada beneen tolluwaay bi mooy maqaamul muraqaba tolluwaay bu njëkk bi mooy tolluwaayu nit ki di jëf di jëfal boromam di jëflanteeg yàlla di rafetal jëf gi ba mel ne dafa jàkkaarloog yàlla subhanahu wa taala foofu ñu fay teewlu ay mbir liñ fay teewlu mooy lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ka annaka taraahu kaaf boobu tashbihiya la ka annaka taraahu ngay jaamu yàlla mel na comme yaa ngi koy gis li tax mu ne mel na comme yaa ngi koy gis mooy àgg ci rafetal àgg ci rafetalu jaamu ngay jaamu sa borom ba mel na yaa ngi koy gis ndax boo ko gisoon ni nga jaamu jaamu boo xam ne bu jéggi dayoo loolu li tax nit ki mën caa àgg mooy tarbiya ruhiya mooy tàggat bu muy tàggat boppam tàggat xolam loolu nit mënut a xëy xëy rek benn bis àgg ci boo gisee ihsaan nekk ñetteelu étape di nekk ca njom waxtal la laata nit ki di ci àgg faw l'islam bi dëgër faw iman bi dëgër mu soog a mën a àgg ci ihsaan ndax bu fekkee yàlla subhanahu wa taala àgg na ci nit ci xolam ci mu koy mën di ko lu ba mel ni mu koy gis donte xamul nu mu mel ndax gisu ko ndax yàlla ci kumpa koy gëm ci kaw suuf nekkul ne def na la comme yaa ngi koy gis mooy yaa ngi koy gis waaye li mu mooy mel na comme boo ko gisoon jaamu ko mel na kom boo ko gisoon na ngay mel bu fekkonte ni gis nga ko moom borom bi subhanahu wa taala jaamoo ko ci anam boobu ci tolluwaay boobu foofu nag lii tax xolu jaam bi mën faa àgg mooy tàggal nit ki tàggat bu muy tàgg bakkanam yar bakkan bi dindi ci takku takku àdduna ak bëgg-bëgg àdduna ak lépp loo xam ne dafay dox diggante xolu jaam bi ak yàlla subhanahu wa taala ndax dañuy wax ne alqalbu idam talaa bi shay laa yabqa fihi muttasaun li gayrihi xol bu feesee ci dara doo leen doon fa am place xol dafa fiir moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam yàlla ne ko woon maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi yàlla defalul kenn ñaari xol ku nekk benn xol la la defal te benn xol mënut a jàppandoo yu wuute mënut a jàppandoo yu safaanoo xol dafa fiir loolu moom loolu nit ki kon martaba boobu ni ci nit ki àggee mooy tàggat yar sa bakkan dëddu àdduna ba poñatum àdduna ak taqi-taqi àdduna yi nga xamante ne ci la seytaane di fiiree ñu bari ci jàng cër yooyu nit ki dindi ko ci xolam fóot ko ci xolam lam cey jëfandikoo mu yamale ko ci loxoom jàppee ko ay jubluwaay te bañ koo jàppee ay jubluwaay bu ko defee ay jubluwaay rek mu nekk ay bëgg-bëgg yoo xam ne xol bi da ciy aju xol xol bi da ciy jëm loolu nag bu fekkee jàng nga dund yonente bi alayhi salatu wasallam da nga ciy gis lu yéeme ndax bu ko neexoon yàlla ubbil ko àdduna jox ko nguuru àdduna Omar ibn Khattab dafa dugg fekk ko moom sallallahu alayhi wa sallam mu tëdd ci néegam biñ doon waxee biñ doon waxtaan sànq tëdd ci basan boo xam ne bi Omar ñëwee fekk ko mu tëdd ci bi mu jógee basan bi dafa tërgën ci diggu ginnaaw dafa tërgën dafa marqué ci ginnaaw Omar ibn Khattab xool ko moom yàgg di jooy yonent bi alayhi salatu wasalaam ne boo Omar lan la looy jooy te xadis bu wér boo xam ne ci saxiixu muslim du xëy na nettali comme yi ñi nettali nii rek ku ne nettali ñu koy nettalante mais xadis bu wér boobu dañ koo solo mu nekk ci saxi muslim nekk lu ñu mën a vérifier kon mu ne ko Omar lan la mu ne ko damaa gis ne xoolal buuri àdduna yi lu mel ne romains yi seen buur wala nga di perse yi muy Rum wal Faris seen buur yi ay château lañ yor ay palais yoo xamante ni ay ndox day daw ay dex day daw ca suuf lu dul àdduna nguuru àdduna lu ne ñu ngi ko ci te yow yaay ki gën ci mbindeef yi yaay ki gën ci jaamu yàlla ànd ak loolu ngay tëdd ci basan bu woowee nii bu ñagasee nii ba muy dërgan sa ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalam lan la ko tontu daf na ko maali wari dunia maali wari dunia lan moo ma jotale ak àdduna man lan moo ma boole ak àdduna in ana fi dunia illa ka rajulin istaqaala wala qaala taxta shajara thumma raaxa wa tarakaha sama misaal ak misaaloo àdduna dafa mel ne waajoo xam ni dafa war new nekk ci aw yoon di dox ndax àdduna fi jaaruwaay moom noonu la ko jàppe woon nekk ci aw yoon di dox naaj bi tàng mu dem ba diggu yoor yoor mu dal ci taataroon benn garab ne xaaral ma noppalu fi ab diir daal di dem mu ne man noonu laa mel ci àdduna daaw fi dajale dara lu yàlla mës a teg ci loxoom ci alal mu joxe mës na jox benn waay diggante ñaari tund ba mu fees ak ay gàtt fekk boobu ñooñu ay nit yi àll lañ yoo xam ne dañuy ñëw tu dugg ci lislaam ngëm bi du dëgëragum seen xol lu mu yor ci alal bu jox leen ko pour neexale leen ndax ñu gën a sawar ci diine ji ndax moom nit ñi dugg ci lislaam jaraloon na ko lu mu yor mu jox leen ko waa ji dafa dem seen dëkk naan gaaw leen ngeen dugg kii ma gis dafay joxe joxewu koo xam ne ragalul ñàkk loolu moo tax bu mu saana jëm ci boroomam xol bi dafay féex ndax lenn ci àdduna du gàllankoor xol bi ndax amul ci àdduna lu mu aj xolam loo xam ne bu taxawee di julli di diisoo ak boromam di déyante ak boromam loolu mën na ñëw di ko gàllankoor misaal bu gàtt benn bis Aïcha radiyallahu anha dafa dem jënd ay rido yu rafet yoo xam dafa am ay dessin ñëw taaralee ko néegam ngir taaralee ko yonente bi alayhi salatu wasalam ci néeg bi nga xam ne fa la koy dalal ñëw daal di koy orné ci néeg bi daal di koy wekk ci miir bi yonente bi alayhi salatu wasalam bi mu duggee kàbbat bi julli fi mu jàkkaarloog ci miir bi rideau bi moo fa nekk bi mu sëlmalee daf ne ko Aïcha rideau bi de boo ko mënoon dindi mu ma gënal ndax li may julli yépp mi ngi may soxal ci sama biir julli te bëgguma kër gi lu fiy nekk loo xam ne booy julli dalay yitteel ba doo mën a concentré wu sa julli bëgguma mu nekk laa yambagi an yakuna fi l bayti ma yashgalu l musalli daf doon wax naan ala inna fi salaati la shuglan inna fi salaati la shuglan julli dafa doy sëkk nit bu ci newee mu yemale ci xolam ba xolam du ko génn moom noonu la ko jàppe woon kon bu mosaan dugg ci julli day seey ci julli waaye ku mel na man day julli xel mi ngi ci àdduna ndax taqi-taqi àdduna yi moo lay topp boo kàbbaree ci julli gi rek seytaane ñëw ne la fàttalikul sa portable ba nga tegoon ca euh, bopp lal ba xale yi nañ ko yàq nga tàmbali seen fàttalikul sa rendez-vous bi nga amoon ak waa ji soo matul li nga tardé nga tàmbali ne ci loolu loolu fitna la loolu fitna la moo tax kon martaba boobu di martabatul ihsaan ngir nit ki àgg ci bëre bu rëy la ak bakkanam xeex bu rëy la ak bakkanam ndax sa bakkan bi du la bàyyi day mel ne fas wi nga xam ne aw mool la nga wat koo wulli ngir mën koo sëf mu nangu bul yaakaar ne da ngay ñëw rek teg daal di dàq mu dem faw nga xeex ak moom di ko wulli di ko tàggat ba nga xam ne mujj gi day nooy ñëpp foo ko jëmale mu topp bakkanu doomu aadama noonu la mel bëggul ku ko sëf bëggul ko ko yenn waaye boo ko tànn tàmbali ab yan loo ko yenn attan na noonu la bakkan mel moo tax kon martaba bii di martabatul ihsaan lu kawe la nit ki la la ko cay àggale mooy tarbiya ruuxiya yar bakkanam fóot ko ci taqi-taqi àdduna ak sol ko ndax bakkan ñaari mbir la mooy sàmm gi nga koy sàmm ba du taq waaye tam ak sol gi nga koy sol mooy suuxat ko di ko alimenté di ko suuxat comme ni nga suuxatee sa yaram ndax ñett ñetti ñetti mbir ñoo ko séq bi xel bi ak rox bi roox bi moo ci gën a kawe ndax lu roox bi mat rek sag nite di gën di mat sag teddaange di gën di mat ndax wala qad karram naa bani aadama bi yàlla di wax ne teral na doomu aadama teraanga boobu mi ngi ci roox bi ndax roox bi bu setlul xel mi lu mu kawe kawe kawe ci ci ci mbonte rek lay jëm gis nga borom xam-xam yu mag ci àdduna bi nga xamante ni seeni rox dafa tax xam-xam bi ci caay-caay lañ ko jëmale jëmm ji ci mu am am kattan te roox bi setul ci foofu ak bànnee foog caaxaan rek la ko jëmale mook bàyyi may ñooy yem kon ruux bi moom moo leen wara a guider moom moo leen war a ci teg leen ci yoon ruux boobu nag la nekk nit ki war a yittewoo fexe nga ngir ngir yar ko mu jublu ci sàmm ko ba du taq du feebar ndax taq-taq yi nga xam ne mooy taq ci ruux bi mi ngi mel ne kenn ci ñun ni muy ragalee bu tawee yooyu yi nekk ci ndox mi jële ci feebar ñëw màttu mu naan moytu la sibiru moytu la nangam lu tax mooy day bañ yaramam boobu wopp yooyu ni muy nekkee ci yaram bi ba nit ki xëy na sax waruma tudd ginaar waaye nañ lañ ko jox exemple nit ki bëggoon ginaar ginaar lool wala bëggoon benn plat lool mu feebar ñu taal ko ci wetam xet gi xeeñ ko nga gis ko mu dummóoyu yaram bi mënatu koo supporter ndax dafa wopp mooy fonctionnement wu yaram bi dafa changé ndax feebar bi moo ko bi naka noonu tamit ruux bi noonu la mel ruux bi bu feebaree lu koy jariñ du ko bëgg lu koy jariñ du ko bëgg moo tax benn borom xam doon yow mi jàngale xam-xam ak yaraate di jëflanteeg koo xamante ni daa sori njub mu ne bul jekki-jekki rek xëcc rido bi ci kanamam ndax nit ku yàggee ci lëndëm nga xëy xëy rek ne ko jamet ci biir leer nee na leer gi day metti ci bët yi du mën a gis mu ne leeru alxuraan ak sunna ak bu njub moom itam noonu la amee doole bu ko nit ki soree boo ko ko dee wan da nga ko koy jox tuuti tuuti ndax mu àttan kon nit ki dafa war a fexe góorgóorlu tàggat rox ci ñaari mbir yooyu ak wa التصفية والتحلية والتغذية mooy dindi bi muy dindi gàncax gi nga xam ne mooy fatt xol bi di fatt ruux bi ginnaaw bi mu soog caa mën a def la koy suuxat di jëf yu baax yi di xam-xam bu sell bi ngir ruux bi mën koo jariñoo ndax bu fekkente ni lu baax li ngay def dafa fekkente taq-taq yi da koy gàllankoor ba ruux bi ko du ci mën a jariñ loolu ñuy bay xam nañ boo dee bay gàncax gi nga xam ne mooy ne ci ci li ngay bay boo ko dindiwul lu mu taw taw itam soo matul da koy gàllankoor ba du jebbi du meññ kon ruux itam noonu lañ koy yare loolu tolluwaay yooyu da gis ne boo jàngee dund yonent bi alayhi salatu wasalam ak ñi mu yaroon di nga gis ne demoon nañ bàgg ci foo xam ne fu sori la demoon na ba li ñuy jëf daan nañ ci teewlu yàlla ci degré boo xam ni kaween woon na lool ci ihsaan bi ñuy waxtaanee mooy waral ngay dégg yonent bi alayhi salatu wasalam mu daan taxaw di jundi guddi di jooy yoo xam ni nit ñi dañuy tiit dañuy jaaxle am na kenn saxaaba yi nee na benn bis génn na nekk ci tukki nee na dañoo doxa doxa dox ba sonn bi guddi jotee ñun ñëpp ña nga tëdd di nelaw amul kenn ci ñun maa minna min ahadin yusalli illa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli taxta shajaratin wa li sadrihi wa li sawtihi azizun ka azizi raha mu ne amul kenn ci ñun ku ñu dégg kuy ku dul yonente bi alayhi salatu wasalam ma nga ca génn taatu garab di julli nee na boo déggee baatam ba na muy yëqatee ci ay jooy dafa mel ne raxaa mooy waluwaay yooyu ñu wale nga xam ne benn mool la bu bu bu bu nekk ab wërngal boo xam dañ ko daan teg jël li ñuy li ñuy wal teg ko ci suufam di ko wëndeel ni muy xërëng-xërëngee noonu bruit boobu nee na noonu la noonu noonu la dënd bi doon ci yenn riwaayat mu ne azizun ka azizil mirjal nee na dënd bi dafay mel di yëkkat di appaat comme bu fekkoon da jëloon ndox def ko ci ab cin teg ko ci taal buy bax bax ni muy def noonu nee noonu la dënd bi doon def ndax jooy loolu li muy tekki mooy jooy ba daanaka wax bu baax foofu laa goon daan na taxaw di julli ba tànk yi di sant sant taxaw di julli ndax taxawaay bu yàgg bi deret ji ni mu war a circuler du ko circuler bu baax ndax bu yàggee dafa daan dem ba tànk yi sant ñu ne ko yow yonente bi alayhi salatu wasalaam qad gafara allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa tasnau hada yàlla jéggalal na la sey bàkkaar yu jiitu ak yu mujj ba noppi ngay defati lii mu ne afala akunu abdan shakuran moo ndax du ma nekk jaam koy sant loolu koy bu ma ko yàlla defalee xéewal na xéewal dañ koy sant moom noonu la daan santee xéewalu yàlla kon tolluwaay bu kaweel boo xam ne bu ca jaam bi tollee ak yi nga xam ne mooy jaamu yàlla ak jëfal yàlla àdduna du ci amati du ci amati wàll kon mooy maqaamu waaye bu ci nit ki tollee itam mu bañ a jaawale shahaada boobu ak shahaada bi ñuy wax ndax am na ay cam nit yu jugoon di jéem a seen bopp ci tolluwaay booba seytaane mën leen ndax seytaane du la bàyyi nit ki lu mu sori rek ak fa koy dikkee ku nekk ak fi la seytaane di di ngir àgg ci ci ci ci ci dayoo yooyu ci tolluwaay yooyu nit ki dina boppam ci ay mbir ndax li yàlla subhanahu wa taala waxoon mooy alladi xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum axsanu amalan yàlla indi leen ci kaw suuf nattu leen mu yàlla dund gi mu ñu indee ci kaw suuf fi su la si ñun nattu la ibtilaa la épreuve la bu ñu yàlla di jaaral xool kan mooy réussir ci ñun kii réussir ci ñun mooy ki gën a rafetal ay jëfam mooy ki gën a sell ay sell la jëf sell la jëf mooy nga teg ko ci yoon bi la ko yàlla sante ba noppi itam def ko te yàlla tax def ko te yàlla tax nag mooy li nga daan wax booy julli naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yàlla yow rek laay waaye yow laay dimbali ko muy ñaari maqaama tamit yoo xam ne mooy maqaamu iyaaka naabudu ak iyaaka nastain bi ibnul qayim doon wax muy ñaar yoo xamante ne nit ki ngir mu àgg ci ihsaan faw mu xeex ci ndax boo ne iyaaka naabudu xamal ne àggagoo ci iyaaka nastain iyaaka naabudu ji sax iyaaka naabudu ji sax àgg ci yow nekkul lu yomb ndax iyaaka naabudu mooy yow yàlla képp yow yàlla dong laay jaamu sama jaamu yi ma lay defal kenn amu ci cër loolu wax ko moo gën a yomb def ndax ngistal mi ngi fi ndéggital mi ngi fi bàyyi xel jàmm mi ngi fi bàyyi xel jaam yi ci say def mu ngi fi ngir nit ki mën a rafetal jëfam te yàlla nga xam ne day fàtte jaam ñi ci li muy def di jaamu yàlla mel na mi ngi koy xool kuy jaamu yàlla mel na yaa ngi koy gis doo gis mbindeef ndax màggu yaay màggaayu yàlla dina la fàttaloo mbindeef yu yàlla mi ngay teewlu ci jamono bi ngay jëf dina tax nga fàtte mbindeef dina tax nga xeeb mbindeef ba xam ne lii ngay def amu ci cër amu ci wàll ndax liy tax nit léeg-léeg di bàyyi doomu aadama yi wala mbindeef yi xel ci ay jëfam mooy cër bu ñu am ci xolam mu yaakaar ne xam gu ñuy xam baaxam wala jëfam dafa am lu koy yox xam-xamu yàlla doyoon sax mbaax li ngay defal yàlla yàlla xam bu mu koy xam moo tax benn buur dañuy wax di tudd benn jaamu ko ci wetam ba mu yàgg mu ne kooku mooy kan ñu ne ah, xamuloo ko waa ju baax jooju mu ne fa in lam arifuhu fa inna allaha yarifuhu mu ne su ma ko xamul yàlla xam na ko moo am solo su ma ko xamulee moom mooy buur bi ñàkk koo xamul du ko du ko wàññi dara yàlla xam na kon loolu bu fekkee nit ki man ngi góor góorgóorlu ci maqaam boobu nga xam mooy maqaamul ixlaas mooy iyaaka naabudu di ci góor góorgóorlu ci rey boppam nga xam ne loolu da koy fàttaloo mbindeef yi mu tëj bunt digganteem ak mbindeef yi diggante ay jëfam ak mbindeef yi ba duñ ci am cër ñu gis ko ak ñu ñàkk ko gis la yemale li muy def ñu fekk ko muy jaamu di def lu baax ñu xam ko wala ñu ñàkk koo xam la li lim ciy xool mooy xamub yàlla ak gis ak gis yàlla looloo ko ci ñor looloo ko ci yitteel loolu nag léeg-léeg ñu koy gàllankoor bari na ndax seytaane ak ku nekk fam lay fam fam fam lay dikkee da ngay góorgóorlu say jaamu yàlla nit ñi tàmbali di di ci wax waaye wax ji ñuy wax ci sag mbaax fexeel ba di ko tànqam ndax mën nay tax nga leen ci bàyyi xel bu ñu la ko waxalee bu beneen yoonee nga bàyyi leen ci xel bu ñu la ko waxale bu beneen yoonee nga bàyyi leen ci xel mujj gi doo bëgg a def lu ñu xamul ndax wax ji ñu koy waxal wax laa neex loola ci yële seytaane di fiiree la bokk moytandiku moo tax nëbbu jëf am solo nëbbu jëf am solo yonente bi alayhi salatu waxoon na ci sabaa yooyu juróom-ñaar yooyu ci xadis abi hurayra ne woon sabaatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma la dilla illa dilluhu juróom-ñaar a ngi nii yoo xam ni ay melokaan la yoo xam ni ku ca melowoo benn ëllëg yàlla dina la keral ci suufu keram ga nga xam ne mooy suufu keru arash bis bi nga xam ne kenn du am ker ku moom mu tuddoon ci rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu mu tuddoon ci waa joo xam ne dafa wéet fàttaliku yàlla wéet jaamu yàlla ay bëtam daal di tuuru mu jooy te yàlla rek tax wéet dafa am solo ndax wéet googu mu def am taxawaay tolluwaay bu mel noonu dëggu lay wane ci moom day wane ne loolu lu sincère jooy ya lu dëggu la moo tax mu ne waaj wéet mu waxaat ci ñun rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu waa joo xam ne dafa génne sarax génne lu muy joxe nëbb na ko ba nga xam ni loxo càmmoñam bi mënut a xam lu loxo ndey loxo ndeyjooram bi di joxe ndax nëbb gum ko nëbb loolu mooy ixlaas mooy sellal waaye boo ca góorgóorloo yem ci sa bakkan ba seen tuuloo nit ñi di am cër ci sa jëf yow muccaguloo ci sa bakkan mucc nga ci nit ñi waaye muccaguloo ci sa bopp seytaane ñëw dikkee la ci sa bopp mu dikkee la ci iyyaka nasta'in ndax bu fekkente ni dem na ba nga tànqam lu nit ñi say jëf seen ci ñoom lenn ci li ngay defal yàlla seytaane dikke la yow ci sa bopp boo paree mu naan la ah yow doo moroomu gars yi jàmbaar macha allah yàlla rek moo tax ngay def ndax lii bu fekkoon nit ñi ñoo tax nga koy def kon doo ko defee nii wala doo ko fii nga commencé am loolu yëg ci sa bopp ci sa xol yëg-yëg boobu yaakaar ni lii ngay def da nga ci am benn wàll da nga ci am benn waaw góor xamal ni yaa ngi yàq say jëf waroo cee gis sa bopp booy defal yàlla loo ko defal sant santaatee ko ko moom mooy iyyaka nasta'in mooy yow la ñuy dimbali ko mooy lépp lu baax lu ma def rek yaa ma taxawu dimbali ma ba mu mën a ànd kon su ma ko defee dama la ciy santaat waaye du ma ci yëg sam bopp ndax bu duloon ak yow du am bu duloon ak yow ma sànku bu duloon ak yow ma alku noonu la jàmm war a xeebee boppam xeeb bakkanam toroxal bakkanam lépp cër yépp mu delloo ko yàlla xañ bakkan bi am na benn borom xam bu wax ne maqaam boobu sax boo ca muccee seytaane du la bàyyi day delluwaat ci nit ñi leen ci yow ñu ñëwaat dikk commencé di la jox ñaari loxo boo ñëwee si jotaay bi ni ñuy jóg xajal la di la may nga toog bu ñu yëgee ni soxla nga ñu ñëw ah ki yow ah yow kay nga tàmbali di yëkkati ay mbagg naan ah kii lii dama koo mérité bu ma nit ñi di defal ni dama koo yàlloo ndax sama mbaax gi ma mbaax moo tax mu tàmbali mel ne comme ça li nga baax daan ko defal yàlla da ngay wëlbatiku dem di ko marchander ak nit ñi. di ko jëndee li la nit ñi di def mu mel ay service yu la nit ñi defal nga ciy kontaan di yëg ne àq la buñ la buñ la war mu mel na comme la nga defoon yaa ngi ci seen tubaab li la nit ñi war a delloo loolu sax gàllankoor la moo tax benn borom xam dafa dem ci marché bi di waxaale di waxaale ak benn waay ba mu yàgg waaj na ko ah si yow la diw yow seetlu ma la woon waaye ñaar téeméer lay jar indi téeméer ndax yow la moo tax mu ne ko man su may jënd du ma jëndee sama diine sama xaalis lay jënd sama diine du ma ko jënde sama xaalis lay jaay ma li ngay jaayee ñëpp kon bul jël sa diine dem di ko jëndee ci nit mu mel ne kàddoom da ngay wëlbatikuwaat di ko lekkee di ko dundee loolu yëpp ay yàq-yàq la yu la nit ñi di yàqalaat sa diine te yëguloo kon bul ko nangu loolu mooy maqaamu iyaaka naabudu ak iyaaka nastain di ñuy wax bis bu nekk suñu julli noonu la xóote mu nekk ne kon ixsaan ji ngir mu mën a ànd faaw faw nit ki bëri ak bakkanam ci ñaari tolluwaay yooyu ba teew lu bi muy teewlu yàlla subhanahu wa taala ci jëf ji nekk loo xam ne lu dëgër lay doon ba tax du rafetal toll rek ci jëf bu jëm faa ak ci rafetal teewlu jooju muy teewlu yàlla subhanahu wa taala ndax teewlu yàlla dina waral màggal gi kay màggal sa xol ak kersa gi ngay am ci yàlla kersawu gi ngay kersawu ci sa borom kersawu gi ngay kersawu ci sa borom boo koy teewlu di teewlu yàlla subhanahu wa taala da ngay kersawu sa diggante ak moom ci lu la sant nga gàtt nañ lu ca wala lu mu la tere woon mu seen la ca di nga am kersa ci lool ndax sa waajur yi nga xamante ni sàkku la moomu la dalaa jóg am ci yow kilifteef yàlla jox ko kilifteef ci yow ne la rafetalal jëm ci moom dinga am am sa mu fekk la ci yenn yi kon naka sa borom la li nga xam ne moom moo la sàkk moom la kon di nga am kersa sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala kon maqaamu ihsaan boobu foofu lay àggale nit waaye mu bañ a juum njuumte li ñu doon junj sànq mooy li ñu ci fanaaw alchahada muy fanaa u shuhud ashuhud an an siwa mooy dem ba dootoo gis lu dul yàlla loolu am na ñu ko daan wax dem ba dootoo gis lu dul yàlla dañ daan wax naan dem ba bëggatoo lu dul yàlla muy fanaa ul iraada fanaa ul shuhud dem ba dootoo gis lu dul yàlla beneen bi ci des mooy fanaa ul wujud mooy dootoo dem ba dootoo jàpp ne leen na ngi fi lu dul yàlla loolu bu fekkee ci yëg-yëgu nit ki la yem lu mën a nekk bu nit ki demee ba bëggatul ci li muy bëgg lu dul lu yàlla bëgg loolu lu baax la bu dee li muy xool ci nit ñi li muy jëflanteeg ñoom li mu ciy xool lépp yàlla lu baax la waaye mu bañ a jaawale bindee fi ak yàlla bis bu demee ba ne gisatuma lu dul yàlla li muy tekki mooy mbindeef yi muy gis yàlla leen jàppee bu booba seytaane mën na ndax mbindeef yi ñu doyee di la jàppee leen yàlla mooy xeeb nga yàlla ndax yàlla subhanahu wa taala moo leen amal ci neen hal ata ala al insani xiinu min addahri lam yakun shay'an madkura inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa jaalnaahu samian basira ku ñu sàkk ci lu doye di loolu nga koy jaawaleeg yàlla kon xamuloo yàlla doomu aadama fi muy jaar ba ñëw ci kaw suuf nga wëlbatiku ne ko yàlla xamuloo yàlla ba gaa yi xoolee ki gën ñi gën koo xam ne ci ñi gën a baax ci jàmm yàlla yi la bokk mooy Isa bokk ci ulul azmi min ar-rusul muy juróomi yonent yi gën a tedd Muhammad la alayhi salaam Ibrahim Moussa Isa ak Nooh bañ ca xoolee kenn ne ko doomu yàlla ñenn ñi ne ko yàlla nga yàlla na leen wax ngeen wax ju màgg du lu dul mbindeef mbindeef la mu yàlla subhanahu wa taala sàkk mook ndeyam bi ko jur dañ daan lekk yàllaa leen sàkk mook ndeyam dañ daan lekk daf ne kaana yakulaani am loola rek junj la dañ naan junj doy na borom xel kuy lekk di soxlaa lekk li muy tekki mooy li nga soxla leneen kooku mënoo nekk yàlla yàlla mooy as samat as samat mooy koo xam ne soxlawul dara as-samad mooy koo xam ne soxlawul dara subhanahu wa taala lépp ko ko soxlaal te moom soxlawul dara wala lenn soxlaalul kenn lenn subhanahu wa ko kooku moo sàkk mbindeef indi leen kon gis ko ci mbindeef yi mooy li ngay jëflante mbindeef yi nga ci xool yàlla boo xoolee mbindeef yi gis ci ñoom màggaayu yàlla ndax xereñ gi leen yàlla sàkke day tegtale màggug yàlla ak kattanu yàlla lépp lu yëngatu ci jamono ji rek lu nit ki mën a sukkandikoo ngir xam màggaayu yàlla waaye bu mu jaawale loolu ak yàlla ndax xereñu ko mbindeef day wane xereñu ki ko bind ndax ki ko bind bu xereñul woon xereñ nga du mën a nekk ci mbindeef màggaayu mbindeef asamaan yi univers bi ni mu màggee malaaka yi yonent bi alayhi salatu wasallam gis na jibril ñaari yoon ci anam bi ko yàlla sàkkee bi ko gisee ci anam bi ko yàlla sàkkee ndax bu daan ñëw daraan jël benn jëmm xadis bi ñu doon wax sànq di xadis omar ibn alxataab waa jooju dikkaloon yonent bi alayhi salatu di ko laaj te ñëwoon ci anam bu jaaxle boobu anam bu doy waar boobu bi mu laajee ba dem yonent bi alayhi salatu wasallam daf ne woowal leen ma waaj ñu jug wër gisuñu ko bi mu jógee ak bi mu naan leen woowal leen ma waaj ab diir bu ndaw la waaye jug nañ wër ci Madina yëpp gisuñu ko xamuñ fu mu dugg biñ dëkkee mu ne leen daalekum jibril yuallimukum jaa yu ataakum yuallimukum diinakum wala diinakum kooku dikkaloon leen jibril la dafa ñëwoon ngir jàng leen seen diine kon jibril daan na ko dikkal ci jëmmi nit ci jëm jëmmi mbindeef benn bis dugg na ci neegu soxnaam kooku yaakaar na Xafsa la wala sala Salama kooku ne ko gis naa ko ak gis naa la nga taxaw ak dexya alkalbi mu ne ko du dexya ki ma seenoon ma taxaw kooku jibril la dafa nekk ne dexya dafa amoon jëmm ju rafet yàlla da ko mayoon taar jibril lu bari bu daan ñëw jëmmi waaju ñu daan jël muy dexya moo tax kenn soxnaan bi ne ko seenoon naa la nga taxaw ak dexya di waxtaan mu ne ko du dexya jibril la waaye gis na ko ci anam bi ko yàlla sàkkee bi mu ko gisee mi ngi am sept miati janaax qad sadda al mu gis ko mu am juróom benn téeméeri laaf li mu waxoon ne jaailil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa rubaa wa yazidu fi lxalqi ma yacha yàlla subhanahu wa taala moo sàkk malaaka yi def jox leen ay laaf ku nekk cër ba nga ca am ak nombre ba nga ca am bi mu gisee Jibril mi ngi am 600 laaf la am muy juróom benn téeméeri laaf màggaayam fépp fu mu xool ci asamaan si du gis asamaan si Jibril lay gis ndax màggaayam xad saddal ufuq mooy foo xool say bët rek ci horizon bi jibril ngay gis moom lay gis moom mi mu feeñu mi ngi koy gis nit ñi duñ ko gis waaye moom mi mu feeñu moom loolu rek lay gis màggaayu mbindeef boobu doo ko ko yéemoo moom mbindeef bi ndax deful boppam noonu yàlla mi ko def noonu moom ngay yéemu ci mbiram aat bi ñuy aat ci xel ji jiitu woon nekkoon ay kàccoor dëng lool yàlla yabal si ñoom ay yonent ñu waar leen wan leen ay kéemtaan lu ne ñu leen ko ñu fettirlu dem ba am kattan ba am doole ba yëm seen bopp dañ daan dem ci montagne yi yettu ko montagne yi ñu daan dëkk ba léegi boo demee ci benn ci yenn gox ci Arabie Saoudite di ko fa romb fañ leen mbugalee woon ba léegi seen jeexitalu dëkk ya boo rombee da koy gis dañ daan yett montagne ak montagne nu mu taree ak jamono jooju ay jumtuwaay nu mu néewee nga xam ne lépp loxo lañ koy def dañ ko daan yett dëkk dëkk ci biir ba ñu demee ba të ba të bay bàkku ci seen am kàttan yàlla malaaka la yebal bi mu ñëwee dafa taxaw ci seen buntu kër yi dëpp gémmiñ gi ci kër yi bi mu leen yuuxoo dañoo mokk mbux da na a yuuxu ñu mokk mel na ko may xobi garab yoo xam ne dafa wow nga jël ko dëbb ko moxoñe ko noonu lañ mel te loolu mbindeef la ci mbindeef yàlla kooku da koy yéemee yàlla mi nga xam ne moom moo ko def noona màggaayu yàlla waaye nit ñi duñu teewlu màggaay boobu ci seen diggante ak seen borom mbindeef mënu laa yéem ba a dox sa digg sa borom loolu moom ñàkk xam yàlla weesu ñàkk xam yàlla weesuwul loolu loo gis ci mbindeef ba koy yëm rek xamal ni yàlla moom ay waxam sax jarul nekk xëy na di ci ndax lépp lu nekk ci mbindeef fi moom xoolal jaar bi nu ñu toll yàlla di leen taxaw ñëpp kenn ku ci nekk muy taxaw sa mbir ak làkk boo mën a wax ak kaddu boo mën a wax ak loo xalaat ci sa xel wala sa xol yàlla ñu koy xam ci jamono ju ne xoolal loolu rek boo ko bëggoon lijjanti tey fii bu ñu fi bëggoon toog lijjanti daf ñoo dépassé dafa dépassé suñu entendement ñun doomu aadama bu ci duggoon dañuy réer dafa dépassé suñu loolu moo tax kon màggaay boobu nit ki da koy xool ci mbindeef yi di ko delloo ci yàlla waaye bu mu jaawale mbindeef yi ak yàlla saa bu ko defee réer saa bu ko defee juum kon maqaam boobu nga xam ne mooy maqaamu ash-shahaada muy teewlu gi ñu teewlu yàlla subhaanahu wa taala ci li muy def liñ ciy déggee itam mooy ne du ko gis waaye da koy teewlu ci xolam ndax bu doon da koy gis kon ngóore nekk dof ngóore gi mi ngi nekk ci mënuloo gis yàlla ñu ne la teewlu ko ba rafetal li nga koy defal loolu lu jafe la waaye bu doon da nga koy gis kooku ngóoree nekkatu fa ndax gis nga ko loolu moo tax ki gis gëm ak ki gisul gëm yamuñu yàlla subhanahu wa taala daf ñoo nattoo gëmloo ñu te gisuñu waaye wan ñu ay tegtal ñu mën a tegtaloo ñuy xel jëfandikoo ko ba xam ne nii du yëfi caaxaan dëgg la gis nga bis bu demee ba nit ñi gis bis bu demee ba nit ñi gis ay firnde yàlla yi nga xam ne koo gis xam ne lii moom mooy wax ji jeex wax ji jeex na jékki-jékki jant bi daan fenkee ci sow amuñu dul jant bi fenkee ci penk ci ci ci ci ci fi nga xamante ne fa jant bi daan fenkee ci ci penku bi ñu xëy rek jant bi fenkee ci sow bis booba bu ko nit ñi gisee ñëpp ay gëm amul kuy wedd ñëpp a naan gëm naa yàlla waaye boobu waa ngëm yàlla loolu du jëriñoo ci nit yow yawma yati baadu ayaati rabbik laa yanfau nafsan imaanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaaniha xayra bis booba nit ñi di gëm ngëm googu du leen jariñ ndax fekk nañu gis ba noppi yàlla li mu bëggoon mooy kumpa gi ne fi nga gëm kon loolu di maqaamul ihsaan kumpa googu moo fi nekk ànd ak nit ki bërit ba bat boppam ba xol bi teewlu foofu la mérite bi nekk li koy gën a firndelaat mooy Moussa alayhi salaam Moussa dafa bokk ci ulul azm boo nee Mouhamad alayhi salaam ne Ibrahim Moussa moo ci topp ci ulul azm min ar-rusul muy afdalu ñooy afdalu rusul Moussa bi mu dajeeg boromam walamma jaa Moussa li miqaatina wa kallamahu rabbuhu bi mu dajeeg boromam yàlla wax ak moom wax ji neex lool ci moom ndax kenn doxul digganteem ak boromam Jibril doxu fa nekkoon intermédiaire bi. yàlla moo wax ak moom mu dégg kàddu yàlla yàlla bindal ko ab téere jox loolu neex ci xolam neex na mu bëgg lu leneen bëggat mu ne rab bi andur ilayk yàlla wan ma ma gis la may ma ma gis la dama laa bëgg a gis dégg naa kàddu gi waaye dama laa bëgg a gis yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ndax mënoo maa gis alimaam Malik nee na yàlla li mu sàkkee jàmm ñi ci àdduna daf leen sàkk ñu nekk luy yàq seeni jëm dafay yàqu mu ne luy yàq attanul loo xam ne luy luy sax la yàqu yàq alfaani mu ne loo xam day yàq àttanul loo xam ne luy sax la li li muy tekki mooy suñu existence bi ci àdduna yàlla dafa ñuy jox ay jëmm yoo xam ne dafay yàq dañ koy summi bàyyi ko boo lëgee yàlla sàkkuñu ci jeneen jëmm joo xam ne lu yàq muy xayaatul axira li mu waxoon wa inna daaral axirata la hiya al xayawaan këru àllaaxira ja mooy xayawaan mooy dund gu mat ji ci la nit ñi di amee dundu gu mat gi nga xam ne dee dootu ko dootu ca topp dee amatu fa ndax dañuy rey dee diggante safara ak sax moo fi nekk ak béer ba faw dee amatu fa ci àllaaxira waaye àdduna loolu amul jëmm ji attanul gis yàlla jëmm ji ni ko yàlla bindee attanu ko Moussa bi ko yàlla waxeelu def na ko lankaraan yi mënoo maa gis waaye lan na ko def na ko walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa taraani ngir nga xam ne sa jëmm ji attanul gis sa borom mi ngay wax ne na ko gis xoolal montagne ndax ci kattan ak ci dëgër doomu aadama doo ko tëkkale ak montagne ci kattan ak ci mën a dékku ci puissance doo tàkk tëkkale kattanu doomu aadama ak résistance am ak résistance montagne ngir yàlla bëgg koo wan ne ko jëmmam attanu ko mënu koo gis yàlla subhanahu wa taala feeñu montagne falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakka bi yàlla feeñoo montagne bi tarfata ayn montagne bi dafa nekk dóom Moussa dafa xëm perte connaissance am bi mu bi mu jógee dafa doon jéggalu di tuub di jéggalu yàlla xam ne laaj na lu jaaduwul loolu la ko yàlla woon loolu la kon liñ ciy déggee mooy bu fekkee Moussa mi nekk min ulil azm ci ñi yàlla jox cër cërub yonent jox ko risaala ak cër bi mu am fa yàlla mooy sàkku loolu ci yàlla yàlla wan ko loolu keneen waxi noppi bu ñu nax suñ bopp yàlla àdduna bi de su ko fi gis yonente bi alayhi salaatu nee na masiixu dajjal bu mu ñëwee ci li ngeen di firnde yi ngeen di sukkandiku ngir xam ne kii ab réeralaatekat bu mag la mooy day ñëw yor nguur gu rëy a rëy yàlla jox ko ay kaawteef ndax nitu mujjug jamono ay kéemaan rek lañ gëm ku yor kéemaan ñu gëm la nitu mujjug jamono dañu toog di analyser di xalaat di dëppale kii li mu wax ak alxuraan di dëppale kii li mu wax ak sunna déedéet ñëwal fii daal joxoñ asamaan si mu taw ñëwal fii jublu jubal sa loxo ci kër gi mu takk wala nit tooñ la jéggi tali bi oto fel ko ñu ne yee kii nitu yàlla kii moom woo foofu foofu xamuñu dangay ngay jabar xamuñu defal kawteef rek masiixu dajjaal nag la mu ciy yor kenn xamul nu mu toll ay nit dinañ ko weddi mu génn seen dëkk dëkk ba bekkoor du taw ay nit gëm ko mu gëdd asamaan si asamaan taw day taxaw ci géej gi ne ko génneel say say trésor trésor yi génn ci géej gi mu ne nit su ma la dekkilee say ñaari waajur ñu ne la maa ne maay sa borom bi la sàkk ndax di ma gëm waaye dina ko xañ kay mu dekkil ko ñaari waajuram ñu jug ne ko sama doom kii mooy sa borom daal di dugaat seen bàmmeel kan la yàlla jox kàttan gu mel noonu moo tax yonente bi alayhi salatu ne bi yàlla sàkkee aadama ba dund tukki amul fitna bu gën a rëy fitna bu masiixu dajjal saa bu ngeen jullee dee leen mustu ci fitnaam ku ku daje ak moom yàlla nattu la nga daje ak moom toogal sa biir kër nit dina toog ci këram am ngëm yàlla ba yaakaar ni kenn mënatu koo jële ci ngëm yàlla dégg masiixu dajjaal di woote mu ne xaaral ma dem xooli ji damay xooli ji rek bu fay jóge ndongaam lay doon bu fay jóge ab al toppe masiixu dajjaal lay doon ngëm yàlla ga fa la koy bàyyi ndax fitna yi muy gis ak lii li mu fay gisee ci ay kawtéef da koy dépassé nitu aaxiru zaman noonu lañ mel ci ay sentiment rek la ñuy la ñuy moo tax tey boo gisee wootekat yu bari di jëfandikoo njabar parce que xam nañ ne nit ñi noonu rek nga leen mën a dajale boo fi toogee naan leen yàlla ne na yonent bi naan la déglu duñ ñëw di njabar leen wala nga xam looy def ak ci yu mel noonu ak nit ñi di la waxal ay mbir na def nga nangam ak yooyu nit ñi topp la mbooloo mu dul jeex du ñu xam sax lu tax ñu topp la ba léegi duñ ko xam boo woowoon nit ne ko kii lu tax nga koy topp lan lan lan lan ci sa diine loo xam ne mën nga ma tegal sama loxo ni moo tax nga koy topp mënu la koo wax nitu axiru zaman ci noonu lañ mel ak masih dajjal bu ñëwee kattan googu ci lay sukkandiku loolu ci lay sukkandiku yor ci loo xamante ni jéggi na dayoo yonente bi alayhi salatu wasallam nee na waajooju mu dekkalal ñaari waajuram du ñaari waajuram la dekkal ndax mënut a dekkal ko dee ñaari seytaane la jël ñu jël jëmmi ay waajuram génn ci bàmmeel bi ne ko kii mooy sa sa sa sa waajur noonu la masih dajjal mbiram di mel bu ñëwee yonente ba alayhi salatu wasallam nee na bokk na ci mandarga ñi xamee ne ab réeralaate kat la mooy danaan nit ñi may seen borom ana rabbukum yonente bi alayhi salaam ne i'lamu i'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamuutu xam leen ne du ngeen gis seen borom ba baa ngeen di faatu du ngeen gis seen borom ci kër gi di këri àdduna du ngeen fi gis seen borom du ngeen fi gis seen borom kon bu fekkee nit ki xam na loolu bu nit ñëwee ne ko maay sa borom dina xam ne kii ab réeralaatekat la loolu kon moo tax maqaamu shahaada bi ñuy waxtaanee di al ihsaan te yonente bi alayhi salaatu wa woon an taabuda allaha ka annaka taraahu mel na yaa ngi koy gis loolu mooy teewlu xol bi mu nit ki di teewlu boromam di rafetal jëfam ba àgg ci rafetal foo xam ne dafa mel ne mi ngi gis ki muy defal muy yàlla mi muy defal yàlla mi muy jëfal di ko jëflante ak moom dafa mel ne da koy gis jëf jëflante boobu muy jëflante ak ci ñaari fànn la benn fànn rek mooy jëf yu baax yi muy def te di ko rafetal lool te yàlla rek tax waaye tamit jëf yu safaanoo yu ko yàlla tere mu koy wattandiku te yàlla rek tax rafetalu jëf ak rafetalu bàyyi ñaar yëpp day dugg ci ihsaan beneen maqaam bi ci des te yonente bi alayhi salatu wasallam wax ko ci xadis bi mooy maqaamu al muraqaba muy maqaamul ixlaas mooy bu nit ki mënta àgg ci tolluwaay foofu ci xolam teewlu bu muy teewlu yàlla subhanahu wa taala ci li muy def mu teewlu gisub yàlla inna allaha kaana aleykum raqiba nga teewlu gisub yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala bi yàlla gis bi mu lay gis ngay foglu lool di teewlu lool ndax yàlla subhanahu wa ma nga fare kaw arsh waaye ku ñu jege la ku ànd ak ñun la ci gisam ak ci xam-xamam suñu dara ump ko suñu dara réeru ko kon gis boobu yàlla di gis ci yow nga xam ne lépp loo ne ma nga la cee gis di ko xam ngay teew teewlu loolu loolu boo ko teewloo dina tax itam nga jub ci sa nekkin ci kaw suuf rafetal say jëf te yàlla tax ndax xam nga ne yàlla mi ngi lay gis kon maqaam bu njëkk bi mooy maqaamu nga mën a àgg ci di teewlu ba mel na yow yaay gis loolu yombul ndax xoo foog bi dëgër énergie bu ci nekk bu am doolee boo xam ne dina ko mën a alimenter ba mu àgg ci maqaam boobu foog nit ki tàggat bakkanam fóot ko ci àdduna ba bakkan bi vide ba àdduna du ko gàllankoor pour mu mën a am teewlu boobu ci digganteem ak boroomam boo àggul ci niveau boobu muy teewlu bu yàlla ci moom di teewlu gis bi ko yàlla di gis loolu dina tax fu muy tollu muy rafetal fu muy toll muy rafetal moo xam jëf yu baax yi muy def wala jëf yu safaanoo yi nga xam ne seytaane da ko ci xëcc bakkanam di ko tànte di ko ci jëmale muy teewlu ne yàlla mi ngi koy gis yàlla mi ngi may gis loolu lu ama am solo la ndax nit ki bu fekkee loolu dëgër na ci xol bi mën na koo muccal ci lu bari ci diineem sànq loo xam ne jëf ju baax la ju mu waroon def te xam ne yàlla ko santoon loolu du nekk lu yombati ci moom tab bi ci loo xamante ni itam ñaawteef la te xam ne yàlla moo ko ko tere du nekk lu yomb ci moom du nekk lu jàppandi ci moom saa bu jógee rek def ko waaye lu teew lu boobu di gën a néew kattan ci xolu jaam bi ah yooyu nag di gën a yomb ci moom sànq loo xam ne lu baax la day yomb ci moom ndax amul lenn lu xol bi di teewlu lu koy puus ndax xol mooy conditionné yeneen cër yi dañuy wax ne al qalbu malikul aada fa ida istaqaama al qalbu istaqaama jamiul aada xol moom mooy conditionné yeneen cër yi mooy seen buur mooy seen buur moo leen di commandé bu fekkee xol bi jub na yeneen cër yi dañuy jub bu fekkee xol bi jub na yeneen cër yi dañuy jub moo tax njub njubu xol moo ci jiitu pour cër yi mën a tegu ci njub ci xadisu Nu'man ibn Bashir yonente bi alayhi salatu daf ne ala inna fi ljasadi mudga ida salahat salaha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalbu mu ne nekk na ci yaramu nit suux boo xam ne bu yëwanee yaram bi yëpp yëwan bu yàqoo yaram bi yëpp yàqu loolu mooy xolam moo tax ñenn ñi wax ne yàlla xol lay xool baaxu xol moo am solo mais bu fekkonte ni comprendre nañ dëgg-dëgg lan mooy baaxu xol dinañ xam ne saa bu xol bi baaxee cër yi dafay baax waaye mënuloo di jëf lu safaanoo ba pare ñuy wax nga ne yàlla xol lay xool yàlla xol lay xool kay dëgg la ndax yonente bi alayhi salatu wasalam moo ne inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum innama yanduru ila qulubikum wa amalikum yàlla du xool seen jëm yi mooy nit kii mat na kii làggi na fii kii patt na ki cëram mat na kii cëram matul yàlla loolu soxalu ko ci yéen ndax nit ku matali ci ci cër ci ay cëram mën na gën a tax am taxawaay fa yàlla ki nga xam ne moo mat waaw nit ku am kàttan ci yaramam mën na ñàkk solo lool ca yàlla ki nga xam ne ku new doole la ci yaramam ëpp ko solo fa yàlla ndax góorgóorlu gi mi ngi nekk ci diine ji góorgóorlu sa diggante ak sa borom foofu la foofu la mbir mi nekk mais nekkul ci ci kàttanu yaram bi nga xam ne da koy jël di ko jëfandikoo ci ay caaxaan di ko jëfandikoo ci say bànneexi bakkan loolu moom bu doon loolu kon ba bàyyi may ñoom ñooñu sax gën ndax ñooñu ñooñu ëpp kàttan kon du ci kàttan kàttanu yaram bi lañu yàlla di attee bu xool itam melokaan yi melokaan yi nga xam ne moom melokaanu biti yi lu baax la ñu koy rafetal di ko kii waaye du yàlla ci loolu loolu nit ñi ñoo ciy jugé nit ñi ñoom ñooy sukkandiku ci yooyu di bu ñu gisee kii ñëw ak baxam ak nangamam ñu jox ko ñaari loxo kii ñëw ak basin jox ko benn loxo kii ñëw ak tuddati sax ak euh, legoo sax ñu jox ko benn loxo loolu nit ñi la yàlla moom du xool foofu yàlla li muy xool mooy li ngeen fas ci seen xool yi ak li ngeen di jëf ci seen cër li ngeen fas ak li ngeen di jëf dafa ñàkk ñaari mbir yu lëkkaloo li nekk ci xol bi moom mooy feeñ ci cër li nekk ci xol bi moom mooy feeñ ci cër yi loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax nit ki kon bu fekkente ni li nekk ci xol bi ci teewlu boobu muy teewlu yàlla dëgër na cër yi dina am istiqaama cër yi dina am njub mën a taxaw ci siraatul mustaqim waaye bu fekkente ni li nekk ci xol bi ci ngëm googu ak teewlu yàlla googu dëgërul mais bu xol bi ragalul yàlla cër yi du mën a ragal yàlla bu xol bi teewluwul yàlla ci li muy def cër yi du ñu faale seen yoon nekku ci intention yi nit ki am te mu nekk ci xolam rek loolu la cër di def bu fekkee mën nañ ko kon mbir mi cosaan bi mi ngi nekk ci xol bi ihsaan boobu nga xam ne moo nekk ci diggante jaam bi ak boroomam dafa nekk maqaam bu kawe boo xam ne yàlla subhanahu wa taala bi mu ko tuddee ci alquran daf koo tudd ci yonent yi wa kadalika najzi al muhsinin dalika jazaul muhsinin li ko yàlla tudd ci ay yonent bari na ci ku mel ne Yuusuf ci ku mel ne Adam ci ku mel ne Ilias ku ci nekk da leen di tudd tudd seen tolluwaay yu kawe ne noonu la yàlla di fay rafet rafet rafetalkat yi ñi nga xam ne ñooy rafetal li muy teg kon mooy yonent yi ñoom ci maqaamul ihsaan lañ nekkoon muy maqaam bu kawe ñoo ca raw képp ku mën a doon nag waaye yàlla tudd na leen ci ñoom ñëpp muy maqaam boo xamante ni li ko yàlla di fayee mooy aljanna waaye ca biir aljanna itam teraanga gu rëy gu la fa yàlla di defalaat ndax yàlla daf ne lilladina ahsanul xusna wa ziyaada ñi nga xam ne ñoo nekk ci aduna di rafetal yàlla dina leen fay lu rafet ndax hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan la waxoon moo ndax du lu rafet lu rafet rek a koy fay yàlla mi ngay defal lu rafet moo ndax du lu rafet da lay fayee nit sax boo ko defalee lu rafet mu fay la lu rafet kon yàlla mi ngay defal lu rafet nekk di jëf jëflanteeg moom ci tolluwaay boobu ci sa xol ak ci say jëf séentul ne lu ray lu rafet la lay fay moo tax mu ne wahal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan newaat lilladina ahsanul xusna wa ziyaada ña doon rafetal yàlla dina leen fay alxusna mooy aljanna comme ci xadis bi ñu saxi muslim yonent bi alayhi salatu wasalam ne alxusna mooy aljanna mooy aljanna ji yàlla defar taaral ko ngir fayee ko jaamam yi jaamam yi jaamam yu doon rafetal ci àdduna ndax ñoom ñoo fi newoon di jaamu yàlla di sonn di kër këri te gisuñu ko mu mel dañoo takk seeni bët gisuñu ko ànd ak loolu yépp ñu ragal yàlla yàlla lim leen wàcceel ci ay firnde jaar ci yonente mi waaleykum salaam wa rahmatullah jaar ci yonente mi ñu gis ko mu nekk ay firnde yu wér ñu doyloo loolu gëm yàlla te gisuñu ko bëgg yàlla yaakaar ko te gisuñu ko waaye doyloo nañ loolu nga xam ne jox na ko ay yonentam ba ñu gëm loolu ngëm googu yàlla nañ ko yàlla yërëmee bu ëllëgee te bañ ñoo xool ci suñu ci suñuy jëf ngëm googu lu rëy la loo xam ne lu lu rëy la yaakaar googu tamit lu rëy la ci xolu jullit bi yaakaar ko yàlla mu jaral ko muy sonn ci kër kër yi ne ci loolu di rafetal ci àdduna bu dajeeg boromam ëllëg yàlla defal ko teraanga teraanga bi mooy yàlla da leen di fay aljanna laata mu leen koy fay jaarale leen ci ay épreuve ngir yëf yi gën a neex ndax aljanna boo xëyoon jóge ci sa bàmmee rek na ci saraax fàtte lépp loo ne woon ci àdduna waaye yàlla du ko doxalee noonu dalay lay jaareel ci ay arasaab jaareel la ci ay jaaruwaay jaareel la ci taxawaay bu metti ba taxawaay ba nga gis fa lu doy waar gis fa ay mbir yoo xam ne jéggi na dayoo gis ay nit yu ñuy poñe di jagat jagatee di yóbbu ñu jegele safara ba nga koy séen gis tiit googu ak njaqare googu ci kanamu nit ñi ba nit ñi bu ñuy génn ci seeni i bàmmeel dañuy génn ñu sol dara yonente bi alayhi salatu ne woon yuxcharu naasu xufaatan xurlan xurlan nit ñi dañuy dañ leen di génn ci seeni i bàmmeel ñu mel na ñu meloon ba ñuy ñëw ci àdduna dara du leen topp tànki neen sax la ñuy def ki ñuy njëkk solal mooy Ibrahim alayhi salaam Aïcha ne waaw yow yonent bi alayhi salaatu salaam nu góor ñeeg jigéen ñi di def nag ak seen awra yi mu ne ko tolluwaayu bis ba weesu na fu ñu talee di xalaat loolu màggaayu bis ba ak tolluwaay ba ñuy toll weesu na fu ñuy xalaatee loolu taluñu ko sax tolluwaay bu metti boobu nit ñi ne ci ak jaar-jaar yooyu ñuy jaar yàlla jëlal di la jëlale ci njàqare yooyu benn njàqare par njàqare ga ciy jóge jóge foofu ci taxawaay boobu ñu jaareel la fa ñuy nattee jëf ya ñu ñëw ñu ñu génne say sa kaye ci sa kanam wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahum yawma alqiyamati kitaban yalqaahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba nit ku nekk yàlla génnal la sa livre bi ñu la doon bindal say jëf yi nga daan ci àdduna loo mos a jëf ñu bind inna kunna nastansixu ma kuntum taamaluun hada kitaabuna yantiqu alaykum bilxaq inna kunna nastansixu ma kuntum taamaluun yàlla génne téere yi bëcc ko ci kanamu nit ñi wan la say jëf bu dee jullit bu gëm yàlla yàlla suturaan ko day wéet ak moom wan ko ay jëfam ba mu gis ko lu mu ko wan mu ne ko lii kay man lii de wax dëgg yàlla man la lii moom man la lii moom man la ba mu yàgg mu naan ko jarata ko man na ko na yàlla naan ko du ma la tooy du ma la tooy du koy wan ay jëfam bu koy nangu diggante ak borom wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya yàlla ne kenn ku nekk ci yéen dana fa jaar dina jaar ci safar waariduha li muy tekki mooy marrun ala ala jahannam dinañ ci romb al wuruud foofu li muy tekki mooy al muruur yàlla subhanahu wa taala muccal ñi nga xam ne ñoo gëmoon yàlla daan jëf-jëf yu baax kenn ku nekk kéem sa tolluwaayu jëf ka ca gën a gaaw yonente bi alayhi salatu wasallam neen dafay mel ne kal baraq comme melax muy éclair muy lumière vitesse su lumière lay am ña ca gën a gaaw ña ca topp day mel ne luy naaw ña ca topp day mel ne ku war aw fas ña ca topp dañuy mel ne góor gu am kàttan guy daw ña ca topp day mel ne kuy waaxu ña ca topp am na ci ñoo xam dañuy watatu di watatu léeg-léeg benn tànk dem béyki mu tegaat di dem di dem di dem ba jéggi am ci ñoo xam dañuy teg tànk daal di melu ci biir yàlla nañu yàlla dolli sutura bu ñu jéggee siraat boobu nga jóge ci njàqare boobu ne des na moo amaat beneen zulma yow ma ko yawma yaqulu almunafiquuna walmunafiqina walmunafiqatu lilladina amanu nduruna naqtabis min nuurikum qiila rjiu waraakum foofa nga xam ne fa la naafiq yi di waxee ñi gëm yàlla ne leen xaar leen ñu ñu jël ci seen leer leer googu leen naafiq yi di wax ne xaar leen ñu ñu jël ci borom wax bi ne bu ñu jógee siraat am na fu ñu tuddee ak zulma bu nekkaat diggante siraat ak xawlu ba foofa lëndëm moo leen fay song boo xam ne kenn du gis sax sa catu tànk fi ngay teg sa tànk doo ko gis boo ko defee ñi nga xam ne ñoo gëmoon yàlla seen leeru ngëm yàlla moo leen di niital am ci koo xam ne day leer la nañ ka gën a tuuti la day mel ne ko yor sondeel boo xam ne daal génn ci ngelaw li muy xuju kamaj di waaj a fay muy muy muy muy mu ciy xool astur di dem bu ne xëy mu xool bu ne kamaj mu taxaw loolu day dellu ci néew doole ngëm yàlla ga waaye am na lu tuuti lu mu yor naafeq bi yorul woon dara day taxaw ne ci lëndëm bi naan waa yéen du ngeen ñu xaar du ngeen ñu xaar lilladina amanu naa li muy tekki mooy xaar leen ñu naqata bis min nuurikum ñu jël ci seen ak leer lañ la leen di wax xëy na jiw waraakum dellu leen seen ginnaaw uti ji leen leer ñu leer gi ci àdduna lañ ko jëlee woon fii leer bu ñuy fi de lu fi waay am leer ci àdduna la ko jëlee woon. bu ko defee foofu bu ñu jógee ci dem googu soo ko jógee foofu dem ci xawdu ba xawdu ba laata ñu dugg aljana ca biti la nekk yonentu ba nekk am nga xawdu dex goo xam ne ma nga ca booru aljana ci pegg ba nga da dajale fa sa xeet ñu dajoo fa ñëw naan fa laata ñu dugg aljana ndax coono bi ñu jógee dañ leen di nag jox ñu naan nag ba seeni xel dellu si waat ñu soog a dem aljanna laata ñuy àgg ci xawdu ba sax am na beneen bërëb bu ñuy àggaat boo xam bu ñu fa taxawee yàlla dafay dindi yi nekkoon ci seen xol yi li yàlla wax ne wa nazana ma fi qulubihim min xillin ixwanan fi sudurihim min xillin dindi nañ la nekkoon ci seen dënn ya ci lu mën a jur ak keñaan ci seen diggante ñu nekk ixwaan ixwaan mubaalaga la ci alxuwa mooy fag koo mën a yem la nit ñi di doon bu yomal xiyaame loolu li koy waral mooy yàlla day rocci rocc yi newoon ci dënn yi li tax mooy bu doon ni ñuy dundee fii ci noonu lañu yàlla di jëlee tàbbal ñu ci aljanna léeg-léeg sa morom romb la nga naan billaay kii kii nangam sàngam mës na maa def lii mës na maa wax lii xam nga dañuy tooñante fii ci àdduna loolu yàlla da koy dindi ci xol yi ba bu ñuy dugg ci àdduna aljanna xol bu set wicc wicc wicc wicc moo fay dugg xol bu set wicc doo xool sa mbokku jullit di am loo koy fàttalikul ci loo xam ne lu safaanoo la xol yu set wicc moo fay dugg moo tax yàlla day naf loolu nekkoon ci biir suduur yi ginnaaw loolu ñu daldi dal ca ca ca xawdu ba yonente bi alayhi salatu wasallam ne woon nañ ko nooy xàmmee sa xeet ak nit ñi ni ñu baree communauté yi ni ñu baree sa xeet naka nga leen di xàmmee bu mën leen xaw xawdu pour war a ànd ak ñoom nag jiital leen ñu topp sa ginnaaw nga dem ak ñoom aljanna mu ne ndax doo gis sàmmkat bi nga xam ne day sàmm ay nagam ci àll bi bu ñëwee ba ci déeg bi ni muy ni muy roccee ay ay nagam xàmmee ba buy dàq ay nagam nag bu ci bokkul sax da koy dàq xàcc xàjj ko mu génn ci biti mu ne ko noonu laa leen di xàmmee yowmal qiyaama ndax da ngeen di dekki seen njàpp li ngeen daan jàpp fii ci àdduna yàlla da koy def leer bu nekk ci seen i xar kanam ak ci seen i loxo ak ci seen i tànk yowmal qiyaama da ngeen di dekki yowmal qiyaam yéen xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam seen i xar kanam ak seen loxo seen i tànk dafay leer naññ ndax jàpp ngeen daan jàpp fii ci àdduna ndox mi ngeen daan jàppoo noonu lay xàmmee xeetam bu dajeeg ñoom foofu ñu naan mu soog a jiitu ñu topp ci mu dem aljanna bu demee mooy jiitu daal di sàkku ñu ci buntu ba ñu tijjil ko kon bu yàlla subhanahu wa taala waxee ne lilladina ahsanul husna wa ziyada teraanga jooju mu fayee la ko jële la ci njàqare yooyu ak jafe-jafe yooyu bu la ci jële woon yóbbu la ci benn bërëb boo xam ne lenn nekku fa lu neex waaye daal mucc nga ci mbugal ma nga ne alhamdulillah ba ma muccee ndax lii ma gis comme mucc naa ci rek baax na waaye doyatul ci loolu mu jël la dugal la ci aljana joo xam ne mosoo koo xalaat ndax xel mënu koo xalaat ci àdduna xel mënut a xalaat add aljanna nu mu mel mënu xel munu koo xalaat doomu aadama mënu koo xalaat dañ da koy misaal rek di la ko wax nii mais munoo koo xalaat ndax niveau bi dafa dépassé doomu aadama niveau bi daf la dépassé fii àdduna perfection amu fi dañ naan tout excès nuisible lépp loo xaabaabal ëppal ci rek mu lor la ndax yàlla binduñu ni ñu fi ngir bànneex waaye fële nag loolu dafa dafa dañ nuisance boobu dafa dañ fële ci aljanna bu fa doomu aadama yi duggee ne fa ak xéewal gi fa ne dañuy waaru bu ñëwee ci loolu ba nekk ab diir yàlla subhanahu wa taala leen ndax duma leen dolli mooy ziyaada bi mu wax bu yokku bi ndax duma leen dolli ñu ne ko yow suñu borom loolu ñuy dolleeti li nga ñu defal yépp amul loo xam ne gis nañ ni li ñu defal lépp ñun day gisuñu loo xam ne jàpp nañu loolu nga ñu war a mën a dolli ndax jële nga ñu ci ay njàqare tiitaange ji ñu nekkoon nga muccal ñu ci walbati ci suñuy kanam tàbbal ñu ci xéewal gu mel nii xamuñu loo ñu war a dolli xamuñu loo ñu war a dolli borom bi subhaanahu wa rotal kiiraay bi doxoon diggam ak jàmm ñi ba mënuñu koo gis ñu jàkkaarloo ak moom ci aljanna bu ñu jàkkaarloo ak moom di ko gis dañuy fàtte gépp xéewal boo xam ne newoon nañ ci ndax neexaay bi nga xam ne neex na ko ñu koy xool loola nit mënu koo amee lu dul ci aljanna bànneex boobu ak neexaay boobu nga xam ni neexaayu xol neexaayu ruux neexaayu yaram àdduna fii bànneex yi ngay def neexaayu yaram rek la mënta àgg ci ruux bi mënta atteindre ruux bi ci yaram bi la yem mais neexaay boobu nit ki di am ci aljanna lépp lay jàpp neexaay boobu di la fàtteloo neexaayu yaram bi nga xam nit ki newoon na ci aljanna mooy neexaayu gis sa borom subhanahu wa taala moo tax mu ne lilladina ahsanu alxusna wa ziyaada ñu tënk taxaw tayib incha allah kon li tax borom xam-xam yi dañ wax ne li tax bu fayee leen loolu mu tuddee ko ne lilladina ahsanu alxusna wa ziyaada mooy rafetal gi ñu daan rafetal ci àdduna gisuñu seen borom waaye di ko teewlu ba tax ñuy rafetal seen i jëf yàlla fay leen teraanga bu mel noonu ci aljana fay leen teraanga bu mel noonu bu ëllëgee wan leen seen boroom ñu gis ko ndax ñàkk gi ñu ko doon ñàkk gis terewul ñu daan rafetal seen i jëf mel na ñu koy gis kon yàlla faye leen loola loolu kon mooy fayu ihsaan bi nga xamante ni moom lañuy ñuy waxtaane moo am ci beneen xaaj boo xam ne xëy na dañ koy junj ndax dañuy tënk waxtaan wi mooy ihsaan ilal xalq mooy rafetal jëmale ci jàmm rafetal jëmale ci jaam ñi itam lu yàlla sàkku la yonente bi alayhi salaam dafa waxoon ne inna allaha kataba al ihsana fi kulli shay wala ala kulli shay yàlla dafa bind ak rafetal waral ak rafetal ci lépp lu nit ki di def yàlla dafa waral ci moom rafetal inna allaha yuhibbu min ahadikum ida amila amalan an yutqinahu yàlla dafa bëgg kenn ci yéen buy def dara lu muy def na ko rafetal mu ne bu kenn ci yéen di rey sax na rey na rafetal na muy reyee bu kenn ci yéen di rendi sax ab bàyyi ma na ko rafetal kon rafetal jëmale ci jàmm ñi lu yàlla subhanahu wa taala waral la ne woon wa ahsin kama ahsana allahu ilayk rafetalal jëmale ci jàmm ñi comme ni yàlla rafetalay jëme ci yow nga rafetal ko jëmale ci jàmm ci li nga leen mënal ci njariñ yoo xam ne njariñi àdduna la ak fegal leen lor nga def ko sa kémtalaay kàttan waaye njariñ li ëpp solo loo leen mën a jariñ mooy njariñu diine yonent bi alayhi salatu dafa waxoon ne xayru naas anfaahum linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki leen ëppal njariñ nit ki ëpp njariñ ci nit ñi moo leen gën te ki li ëpp gën a jariñ nit ñi mooy ki leen gën a jariñ ci seen diine gën leen a jariñ ci yoon wi tax yàlla sàkk leen indi fi indi leen fii liy waral ci ñoom texe ak terangay àdduna ak àllaaxira te mooy ñu taxaw ci jaamu seen borom ki la ci gën a jariñ moo la ëppal njariñ donte dërëm joxu la ko itam moo la ëppal njariñ ndax loolu mu lay jariñ alali àdduna mënu koo jënd keroog Ali ibn Abi Talib bi muy dem Xaybar di ko tijji ji ci yahudi yi yonent bi alayhi salaam daf ne ko laan yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min addunya wa ma fiha seen riwaayat mu ne ko xayrun laka min xumuri naam yaa ngi dem yahudi yi yor nañ alal ju bëri def ko ci seen biir kër yooyu waaye bu la loolu yitteel li la war a gën a soxal mooy njub yàlla baaxe la ba kenn nit rek jubbantikoo ci sa loxo ndax bu yàlla jubbantee benn nit ci sa loxo moo la gënal àdduna ak ci biir njëriñ loolu kon ki jëriñ nit ñi ci seen diine teg leen ci siraatul mustaqim di leen ci teeti la mu xam ak as néew mu leen koy baaxee kooku moo leen gën a jëriñ kenn ku nekk ci ñun loolu am nga ci responsabilité sa kéemtalaay kattan donte benn xaraf la boo xam ne jàng boo xam nga ko boo ko mënee baaxee nit yàlla defal ko ca yiw defal ko ca njariñ mu jariñoo ko def ci sa kéemtalaay kattan bañ ko sàggane xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci yéen mooy kiy jàng xam-xami alxuraan ak la ko topp ndax alxuraan la wax waaye xeeti xam-xami diine yépp da ciy dugg ba noppi di ko jàngale kon jariñu di jariñe jariñu di jariñe ihsaan boobu nit ki di defaat jëmale ko ci nit ñi na bàyyi xel ne amal nit ñi njariñ naam lu baax la yëwan ci alalam yëwan ci lépp loo xamante ni mënal na ko nit ñi mu mu ba mu baaxee leen ci taxawu leen ci rawatina ay mbokk jullitam bu ñu dul ay jullitam mu rafetal dëkkoo bi ak nekkin bi amaana yàlla mën na def ñu rafetlu lislaam ba bu ñu tuubul itam ñu fonk jullit ñi wek leen boo amee loraange boo xam ne mën na jóge ci yow di jëm ci nit ñi nga jéem a fexe fekk ko loolu yëpp ci rafetal jëme ci nit ñi la lay dugg bu fekkee njariñ loo xam ne lu leen di jariñ ci seen diine la nga mën leen cee taxaw loolu bul ko sàggane góorgóorlu ci ndax njariñ nit ñi dëgg dëgg dëgg foofu la nekk moo tax digle lu baax di tere lu bon ci société bi ñu nekk amul liggéey bu ko gën amul liggéey bu ko gën kenn ku nekk am nga ci responsabilité yonente bi alayhi salatu wasallam daf ne woon ñi nekk ci société bi di baaxal ak ñi fi nekk di yàq ni mu koy misaalee dafay mel ne gaal yu bokk dugg ci benn gaal gaal bi niveau la niveau bi nekk ci suuf ak ñi nekk ci kaw ñi nekk ci suuf mënuñu am accès ci ndox mi ñi nekk ci kaw ñoom ñooy gis ndox mi ñi nekk ci biir bu ñu soxlaa ndox dañuy wax ñi nekk ci kaw ñu tànqal leen bi jaabante bi sonalee leen dañ ne nañu bënn gaal bu ñu ko bënnee am ndox jarul ñuy jaabante yonente bi alayhi salatu wasallam nee na ñi nekk ci kaw bu ñu sàgganee ba gaay yi ci suuf bënn gaal gi ñoom ñëpp dañuy suuf dañuy lap waaye bu ñu demee jàpp ci seen loxo ñoom ñëpp dinañ mucc loolu mooy ñi fi nekk di góorgóorlu ci diine bu ñu yamalee mbaax mi ci seen bopp am nañ responsabilité ci ñi ñuy gis ñuy def lu safaano mënoo dem jàpp ci seen loxo naam ndax amuloo xëy na mën-mën gi ak kàttan gi waaye li nga mën mooy nasiha addiinu nasiha mooy ngay laaye biir di wax ba fépp fu sa kàddu yem nga xam ne foofu la yem yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala sàmm defal ñu njub wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin jazakum allah xayran barakallahu fikum kon mbokk yi defe naa ne ni ñu dégg waxtaan bu baax a baax. Euh, dañu doon xalaat ne dañuy bàyyi mbokk yi pour fekk am na laaj bu mu war a laaj. mu laaj wala lu mu ciy dolli. Ah, xëy na dama bëggoon ñu mujje boobu. Uh-huh. waaw su fekkee am na loo xam ne ci mbokk yi lu lënt ci li mu doon wax. mu bëgg ko leerlu incha allah ñu jiit ñu jëkk ci loolu bu amul nag doog a dem ci borom xam-xam yaa ngi ci ñu yokk ci bismillah allahu taala Bom. Leva sim. waaw bu fekkee amul imam Mansour bismillah. salaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbokk yi alhamdulilah rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah nabina muhammad sal alihi wa alihi sahbi salim mbokk bi jazaallaahu xayran fàttali nañu waxtaan bi dara am ci li ñu war a mat na te leer na itam te tënk na itam li des rek mooy jëfee ak jëriñoo te itam fàttali ñu tomb boo xam ne bii dafa làmb lépp loo xam ne doomu aadama mi ngi koy dund ci jëfee ci diine daf ko làmb ba tax ne sax jaamu yàlla gi sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dénkoon saxaaba bu mu sopp bu jege muy Muaaz ko bul fàtte mu ko boo jullee ba pare sax na nga ñaan ne allahumma a'inni ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatika yàlla yàlla nga ma dimbale ma di la sant di la fàttaliku te di la jaamu rafet kon jaamu yàlla yépp buñ ko boole li ci rafet moo gënal yàlla moom gën a kon ëmb na lépp boo dem jaamu yàlla nuy defal yàlla mu rafet bi ci gën rafet moom la loolu nag dafa yaatu tënkal na leen ci yu bare bari bokk na ci yooyu nit ki ni nga nekkee ak sa soxna yor ko takk ko ci farata ak sunna yor ko sa kër na rafetal ci moom sa kem kàttan rafetal sa kem kàttan si diggante ak soxna jaamu yàlla li bokk rek booy fanaan ci jàkk ji dàq jàng xuraan dàq julli dàq rukkoo te si jabar fu mu waxee nga dàq fu waxee nga jàng fu mu waxee nga fas kanam njëkkal ñàngal foofu moom amoo fi ihsaan foofu moom bu ñu la nga fi am zéro rafetal amoo ko sa diggante sa jabar te borom bi day wax ba ne sax fa imsaakun bi maarufin aw tasrixun bi ihsaan boo ko yor jabar yor ko ci njëkk ak dara soo koy bàyyi sax na rafet sooy bàyyi sax rafetal yàlla moo xam gis nañ fi sëy yu bari ñu dem ba teqali koo am mais ñaawaay ba ak ñàkk rafet ba tax ne njaboot ga ci juddoo sax dootuñ mën a déggoo ak seen i waajur yàlla mu ne sëy bi sax buy tas sax na rafet ndax lee ëllëg ci tas sëy ci ci dem sëy ci kër gi tas te am fi njaboot ëllëg mu mën a seet seet si ak njabootam ci kër gi ndax rafetoon na waaye bu ñaawee dootu mën a ñëw ci kër gi mën a ñëw te ay doom mën doom yooyu mën nañoo màgg ëllëg ba nekk chef de famille yor yor kër gi kon ngir rafetal dafa yaatu kon yàlla nañu yàlla dimbali ci loolu. baax yi ko su ñu koy defee julli ak jàng xuraan yeeg jaamu yàlla yi dem ba ci jëflante bi ak njaboot bi itam ñu rafetal ci soxna yi. gën a rafete yàlla nañu ko yàlla boole na yàlla boole nangul koor yi yàlla na yàlla nangu jaamu yàlla fa jazakumullah khayran wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam imam Abubakar bismillah bismillah ah waaw waaye ah tardé wa de fekk am na loo fekk waaleykum salaam wa rahmatulah yàlla yàlla nangul ñëpp amiin yaa rabbal aalamiin yàlla nangul amiin allah mbokk mi doon fàttali yàlla yàlla fay ko amiin allah yàlla fay ngeen di béy amiin allah euh, xaqiiqa la alhamdulilah béykat am na solo sant am na solo lool waaye lépp rek te ni ku ne war a bàyyi sa bopp tënk li ma jot a dégg bu fekkee ko mooy ñu kenn ku ne ci ñun xëyi bi ñu yegg ci waxtu bii te mooy jàpp bi ñu jàpp ci walis lekk ak naan te loolu doon lu ñu lew dagan ñu kenn ku ne bàyyi ko sa bopp dama na joo demee ko dëmmal benn bu mën a doon noonu nga bàyyi leen moom moomu noonu nga war a bàyyi xel lii te xam ne yàlla ngay gis ku ne ci dugub loolu ngaa wér sa kër dugg sa naan wala nga lekk te kenn du ci xam nga jiital ci lépp lu mën a doon bu la kenn gisu yàllaa ngi lay gis mu jaral la nga bàyyi lekk mu metti lool bàyyi naan mu metti lool muñ ko nga war cee tàggatu ñaar fukki fan juróom-ñeent wala fanweeri fan leneen lu wuuteeg loolu tënk waxtaan bi mooy doon da nga bàyyi yàq moom da nga bàyyi lu xaraam mais bëgg boo bëgg yàlla ak fees bu mu fees sa xol ak kersa sa diggante ak sa borom moo tax da war mar xiif doo nangoo na noonu nga attane mën a def loolu liñ la wax ne baaxul liñ la wax ne dafa xaraam teg ci sa mbokk lu dul loolu teg ci daram di góorgóorlu lool ci jaamu yàlla ci lu naqari sa mbokk rek yàq ko ca bu yeboo bàyyil jaamu yàlla bu yeboo bàyyil koor da ngay jibal sa bopp rek comme mu jël boog la riwaaya ba wax bari war na aji woor yoo xam ne amul ci kooram dugul xiif ak man koor bi dafa am lu muy def ihsaan boobu mu maqaama ihsaan boobu mu doon wax sëddale ko ci manaasit yooyu mu jutu tudd yëpp bi rek mooy ni nga attanee bàyyi sa bopp loo xam ne daf laa lew dagan la nga moom ko ngal la waaye boo ci tàggatu ba mel nii war naa mën a am mu def ci war naa bàyyi dara ci ndax def formation ci dara ba pare te jëlewoo ci dara kooku da ngaa perte yàlla ngeen defal tawfiq jazakallahu xayran yàlla yàlla feer yi bokk vraiment parce que am na solo lool naam naa hmm. lakin fa xayr incha allah barakallahu fiik waaw jazakumullahu xayr naam aleykum salaam xalaat ci naaj bi kay xaj na fi ba nga wax ak yow ñetti monsieur monsieur Fara monsieur Sow Diop loolu daal naa ne bu dee xaj na fi man jàppoon naa ne gën ci sori laal na ci wànq aajoon doole aajoon loolu bu ma xoolee juróomi at yii sunu sunu boor yi parcelle bi ma gën a xam Fatia yooyu ba ba nu mu tudd jàpp si li ma répété am nañu problème mu dégg noonu loolu su ma seen loolu ñu loolu ñu dégg jotul nga ni mu la ko waxee noonu noonu la mais ñu ñu ko ñu ko déggee ñoom ah ba dee ba sonn sonn ci indi sonn ci seen mbokk sonn ci indi sonn ci lëkkaloo ñu dañ jàmbar lool ñu war a war na jublu ba jëndee ci ministère bi yëpp lool parce que ministère yooyu météo bi taal nee na ko. programme bu ci wax ndax mën naa dina am ñu ne leen ñoom dégg li mu wax ne xam ne ñoo xam daal ñoom ñoom ñi nga xam ne ñi nga xam ne waaye nag ba ñu ci yëpp ñu rek kon bu bëri bindu surtout di ko nekk di suñu bopp yi loolu daal la wax ni dégg ngeen tànk am ma ci yooyu mën naa gën ci sotti sotti sotti naam asalaamaaleykum

liggéeyal la lu mel ni dañ ko tuur ngir duñ ba tey ñu bëri si ñëpp ku nekk buñ la def si kanam ñu bees si kanam ba macha allah bu siraat ba bu dégg bii dañu war a dundal ren si année lépp lu ñu am foofu. bismillah walhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim allahuma allimna ma yanfauna wa anfana bima allamtana wa zidna ilman nafia tayib ala kulli xaal ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo jot a àddu yëpp ci waxtaan wi di ñaan yàlla subhanahu wa taala li fi rot ci ay yiw mu jëriñ ñu ci te boole ñu xéewal bi boole ñu fay bi eh, mbokk mi dafa waxoon ne dañoo junj ci biir jataay bi ñetti tolluwaay yoo xam ne dafa am ay nit yu ko daan tudd ci wàllu jaamu yàlla ak yar sa bakkan muy nit ki dem ba àgg ci niveau boo dafay jàpp ne moom jeex na wala am na lu mu jeexle ñu koy tuddee maqaamul fana benn bi di fanaaul irada muy alfana an iradati siwa beneen bi di fanaaul shahada muy alfana an shuhudi siwa beneen bi di fanaaul wujud muy alfana an wujudi siwa mooy nit ki dem ba moom bëgg-bëggam jeex ci yàlla amatul lu muy bëgg wala lu muy bañ yàlla rek lépp yàlla rek la ciy jiital ci wàllu bëgg-bëggam loola buñ ci yemee foofa ci wàllu bëgg-bëggu nit ki ci li muy bëgg ak li muy bañ mu jiital ci yàlla dara newu ci wax jooja ndax yonente bi alayhi salatu loolu moo nekkoon mbiram li muy bëgg ak li muy bañ yëpp yàlla la ci doon xool loolu nag ci bànqaas yi jaam yàlla wala ngëm yàlla yi gën a dëgër na bokk ndax yonent bi alayhi salaam dafa waxoon ne inna awsaqa ural iman an tub an tuhibba lillah wa tubghida lillah bànqaas wala bokk buum yi nga xam ne ñoo fas ngëm yàlla bi ci gën a dëgër mooy nit ki dem ba àgg ci di bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla li muy bëgg yàllaay tax li muy bañ yàllaay tax beneen fanaa bi ci toppaat mooy alfana an shuhudi siwa mooy dem ba gisatoo keneen ku yàlla loola ñaari déggin lam benn bi déggin bu wér la benn bi déggin bu yàqu la déggin bu wér bi mooy li ngay gis ci jàmm ñi nga koy tegtaloo di ko delloo ci yàlla loo gis ci jàmm yi rek nga delloo ko ci yàlla liñ naan lu ma xool rek yàlla laa ciy gis mooy du lu ma xool rek yàlla laa koy jàppe waaye lu ma xool yàlla laa ciy gis mooy kon ci gis-gis bi lay dellu mooy ni nga koy xoolee yow da nga ciy xool gis ci yàlla gis ci màggaayu yàlla ci li ngay jëflanteeg sa borom ndax mbindeef la mu yàlla sàkk indi ko fi tegtal la loolu moo tax yàlla tuddee ñu aalamun bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin aalam pluriel la benn bi mufrad bi mooy alam al alam mooy al alaama mooy loo xam ne mandargal mbindeef yi li tax yàlla tuddee leen ay mandarga mooy dañuy tegtale seen amuk borom dañuy tegtale seen màgguk borom kon bu nit ki àggee ci di mën a tegtaloo ci mbindeef yi di gis màggaayu yàlla loola lu wér na benn ab kaw-kaw dañ ko laajoon ci lu njëkk ne ko nooy xamee sa borom mu ne subhaanallah inna albaara tadullu ala albair wal athara yadullu ala almasir fa samaun daatu abraj wa ardun daatu fijaaj wa bahrun daatu amwaaj alaa yadullu dalika ala samii albasir mu ne am na lu ñuy tegtaloo ñun ba buñ ko gisee xam ne fii ab njëgg moo fi jaaroon benn caravane boo xam ne ay gëléem a ci newoon fu ñu tëdd ba jóge fa da koy fay fekk seen i boo ko gisee nga xam ne kon jaar nañ fi boo doxee ci désert bi ba mu yàgg gis ay jeexitalu tànk da ngay ne am na ko fi jaar mu ne su ma xoolee asamaan si ak niñ ko tëralee xàll ko defal ko ay yoon xool suuf si ak niñ ko tëralee defal ko ay yoon yoo xamante ne day jaar ci diggante montagne yi gis géej gi ak douce vague yi ñu ci def mu ne ndax loolu yëpp duñu ci tegtaloo ngir xam ne yàllaa ko def loolu yëpp ak màggaayam ku ko ku ci mënta xam ne yàllaa ko def kon mënatoo tegtaloo lenn beneen fanaa bi ci des mooy alfana anil wujud mooy dem ba jeex yow sa bopp ci yàlla li naan dafa jeex ci yàlla wax jooju nañ ciy def ndànk ndax ñenn ñi dañ koy tekkee alxulul alxululul xaas dafa am alxulul la am ak alxulul xaas mooy jeex ci yàlla mooy dem ba tappaloo ak yàlla nekk yàlla yow si jëmb ji nga far mujj nekk yàlla li ñeen di wax waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin jàpp ne maqaamul yaqin boo ci àggee dem ak am al maarifa sa bopp da ngay wëlbatiku nekk yàlla yow sa jëmm ji ba yenn nit ñi daan fëgg seen dënn naan man lu may jaamooti ndax su ma jaamoo sam bopp laay jaamoo ndax moom jàpp na ni léegi yàlla kon kii sujjoot ak ki muy sujjootal kenn dañ kon jaratul muy sujjoot loolu njuumte la loo xamante ni ay wax dañ ko ciy dégg muy tas léeg-léeg ay xale di ko wax mooy comme la nga junj léegi te xëy na du njàng mu bëtt moo xam ne xam nañ wax jooja la ko cosaan ak fa mu jóge ndax wax jooju fi mu jóge dëgg-dëgg ci cosaanam amul cosaan ci diine doo ko fekk ci alxuraan doo ko deg fekk ci sunna ci philosophie ci ñoom la jóge ci liñ daan wax ci al wujudul mutlaq ak al wujud ñaari wujud yooyu ak al wujudul muayyan loolu xëy na duñ ci trop mais ala kulli xaal wax jële joo xamante ni fu sori la jóge jóge ci philosophie ak ci ñenn ñu daan tuddee al jahmiya ñi daan wax ci al farq bayna sifaat wa zaat foofu lañ ko tibbee mu tasaaroo dem ba dugg ci tasawuf ñu jaxase ko tasawuf waaye cosaanam du sax ci tasawuf ñi ko jàng dëgg wax jooju xam ko xam nañ ni cosaanam du tasawuf am na ay mutasawifa yu mag yoo xam ne wax jooju bokkul ci seen i pas-pas waaye dañ ko tàbbal ci tasawuf am lenn ci mutasawifa yu ci taqe di wax ci loolu ci fanaa yooyu dem bay benn na jàmm bi ak yàlla ñenn ñi dañuy jël nit ne dem na ba baax bàgg ci yàlla nekk yàlla ñenn ñi nag ne lépp yàlla la ndax jën jënn benn existence moo am existence boobu benn la kenn mënu koo def deux boo ko xoolee par rapport ak individu yi ay mbindeef nga leen di tuddee mais boo ko xoolee dans l'ensemble yàlla la kon ñun ñëpp boo ñu boolee ñun ñoo composé yàlla mu nekk jenn jëmm joo xam ne ci ñun la ko nekkee mais boo ko tàqalee par rapport ak individu yi ku nekk da nga naan man na yow kon tàqale gi di muy différence bi mi ngi nekk ci par rapport ak individu yi mais par rapport ak nga ni nit wala nga ni al wujud muy l'existence benn existence moo am man ak yow ci yem loolu mooy yàlla léegi foofu lañ waxee ne kon nit yi ñooy yàlla mais boo leen xoolee mën na waxaat ci benn côté ne mbindeef lañ mu nekk wax joo xam ni kenn xamul lu muy tekki au fond mais yàqute bu rëy la ci lu mu yàq ci pas-pasu jullit yi ak ci jamono ji nga xam ne dafa tas lool ci ndaw ñi ñu koy tas di ko wax te muy nekk loo xam ne dafay yàq ala kulli xaal loolu lañ ci mën a tënk ak lu ñu cheikh bi jotoon jox ci waxtu waxtu wi jeex na yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala taxaw yàlla nañu yàlla sàmmal suñu diine yàlla nañu yàlla teg ci siraatal mustaqim ya suñ jataay bi niñ fi toogee nii yàlla nañ ko yàlla dajale bu ëllëgee ci aljana wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah